plan où yoonu yokkute. de. Mhm. un nga ca. Mimi Touré premier ministre bu Macky mhm. Mimi Touré ministre de la justice bu président Macky Sall. Mhm. Mimi Touré présidente conseil économique social et environnemental. bu Macky Sall. Mimi Touré tête de liste coalition Benno Bokk élection yi 2019. la mu def tour Sénégal. Mhm. tour du Sénégal. Mhm. fu mu dem taxaw ne président Macky Sall mooy président bu gën ci réew mi. Mhm. depuis que Sénégal indépendant ba tey moom moo moo wone en tout cas PSE lépp lu mu doon def ci région yi. Mimi Touré moom moo ko dem vulgariser won ko Sénégalais. un pur produit du système. du système Mimi Touré moom moo setal deru benn bokk yaakaar ci complot wu dossier Adji Sarr moom moo ñoo taxaw ne coalition benn bokk yaakaar yoruñu. adresse voilà carnet d' adresse la ko xaw ma. Mhm. cahier billetterie xaw ma guichetier. carnet d' adresse voilà bu Sweet Beauté. Mhm. Mimi moo fi taxaw ne ñii dañuy manipuler askan wi. Mhm. dañ leen di nax dañuy nax jeunes yi ñoom ñooy tax jeunes yi dem di taal pënë di dee au de quoi. de manipulation. Mimi Touré Mimi Touré moo bëgg nekk président assemblée nationale Sénégal Nous ne ko du yow la ñu tànn keneen la ñu tànn Amadou Mame Diop mooy président assemblée nationale. Mimi Touré comme presque 98% des opposants sénégalais de l'époque mooy ñàll Macky Sall dàq ñu soxla dara ci moom amuñu ko wala ñu bëgg dugg xaar bu ñu nekk ay opposants gis ni Sénégal dara doxu fi parce que Sénégal loolu fi opposants Sénégal à 98% pour mm. anciens ministres lañu anciens agents de l'État ñu ñu mm. anciens je sais pas ñu autour de la présidence Nous xamante lu ñu doon xaar président ils deviennent automatiquement des opposants si lañuy soog Sénégal dara doxu fi. da ngay jàpp ne ay frustré lañu ay mer ngemb lañu. waaw mun nañ leen wooyee ay frustré mais mun nañ leen wooyee des parasites. d'accord mun nañ leen wooyee des des des des michetonneurs mun nañ leen wooyee noonu parce que tey des chasseurs de primes parce que tey boo boo boo ñëwee taxaw Mimi Touré en moins de parce que boo xoolee élection législative yi bu ñuy passé ak moom bu muy retourner sa veste ba dem farfee hmm te moom moo doon defante ak gars yi ay point de presse une heure du matin deux heures du matin. Mhm. lay génn gars yi bu ñu génnee conférence de presse sur conférence de presse mu génn tontu ñu xañ ko assemblée rek mu viré dem de l' autre côté ba gars yi di ko jël Ousmane Sonko di ko jël di ko posté ci ci Twitter di ko défendre ni li ñu koy teg du yoon ak yooyu noonu ci diggante bu gàtt bi te ñoom ñaari ñoo doon joxama jox euh, joxale. Mhm. tey moom la ñu la ñu tàbb man ci ñu may wax. Euh, mooy ñu leen di topp ñu leen gëm parti nag noonu la mel parti politique dafa am ñoo xamante ne ñu ñuy wax ñoom ñooy cherakano yi ñoo xamante ne bu dee jotee ñoom ñooy dem dee mais ñuy dee rescapé yi sax du ñoom la ñuy fal parti dafa am les têtes pensantes mooy ñuy xalaat ñu nekk sous leur climatiseur ñoom ñooy parti ñoom ñooy dem ci plateau yi ñoy costume ñooñu buñu ñu faloo ñoy ñooy ñam mm. ñu nekk ci tali di taal ñi ñuy encaisser affaire yi di dé ñi dagg sen loxo sen beuti di touru mm. ñooñu du ñu am parce que xamnañu nañu ni mënuñu leen apporter dara ni révolution bi bu jeexee ñooñu mënuñu leen apporter un plus donc ñooñu lañu mëna mën a fal dégg il faut té bi moy première mi mi encore en na vers la fin comme li ñu ron wax sen combat bi mais remaniement ñu ngi ñëw gouvernement bu fi nek dinañu changer ils vont voir ñom ñi ñu doon combattre dëmb ba xam du ñëwaat ci gouvernement bi. Mhm. di ngeen gis continuer gis des des anciens ministres sous le président Macky Sall ñu ñuy nommé ci gouvernement bi loolu kay safuta wax. Mhm. dinañ euh, attendons de voir dinañ ci gis ay têtes yo xamante ñom sa ñu ñuy wax parce que commencé na lancé na gadji jiiñoon nañ ko ni fi mo mo moo fi détourner 700 milliards. Mm-hmm. ci affaire euh, ONAS bi. Mm-hmm. tay nommé nañ ko PCA APEX. tout à fait dina amaat ñenen ñoo xamantene yag nañ leen tuddu ci ay ay ay nébula. Mm-hmm. ñoo xamantene ñu ngi leen di fal. d'accord donc ñenen ils vont suivre gis na ci ñu bari ñu ñu si am déception parce que Mimi waruñu ko fal parce que parce que. y a pas que Mimi ah Mimi sax xeex na. mais am na ñoo xamante ne ñoom ñoo leen doon xeex. Mm. mais dinañ leen fal ministre. d'accord ayca euh, Fatim ñu ñëw ci la nomination euh, de Mimi Touré nga wax ñu ci rapidement sa gis-gis balaa ñuy dugg ci coowal suuf li. nomination de Mimi Touré bi je crois que Fidèle wax na l'essentiel. Mm. tata Mimi tata Mimi moo moo moo fi nekkoon nag di tontuwanteeg ñoom lu bari. Mm-hmm. mais loolu yëpp duma ci revenir li ma ci wax ñaari mbir kese la mooy que muy politique yëpp muy opposition comme pouvoir. il faut que sénégalais yi ñu xam ni ki bu la neexee nga far fu la neex bu la neexee nga bëgg ku la neex waaye il faut que ñoom ñëpp ñu xam dans l'unanimité que comme politique yi comme euh, pouvoir mm-hmm. comme opposition mm-hmm. ku nekk day manipuler wax pour son pour ses propres mbir intérêt personnel moo leen ñor mm-hmm. du loolu luñ la wax yaa leen tax a jóg nax nañ la la preuve ku ci tufli tay bu subaa fi nga ko teg am lu fa nekk ça te dérange pas nga lekk ko dem jëli loolu sa mbir rek nañ ma baal mais sa mbir rek moo lay def parce que dañ fi gis ñoo xamante ne dinañu wax lu rëy rëy xuloo wax sa moroom xam nga mën nañu adverse amul problème mhm. ñu waxante yenn wax yi ñu xam ne politique la mais bu ñu duggee ba ci yu ñaaw waxante ko wax yu ñaaw ba ñëpp di ko wax ku ko dégg rek téye sa làmmiñ même personne bi wax loolu moroomam suba ñu xëy ñu gisaat ko kooku mu demaat génnaat si ba mu set ñu defaat nii léegi dañu ko def ñoom peut-être même buñ koy wax gëm nañ ko gëmuñ ko mais ñi topp seen ginnaaw mhm. daf leen jaraloon xeex mhm. ñàkk bakkan am na parents yoo xam ne ba tey seen doom yi ñàkk nañ ko ñooñu sax ñoo ngi ci tranquillité mhm. mais ñi nga xamante ne danoo ñàkk ay bët wala sa tànk damm si loo xamante ne da ngay rappelé wu xeex bii moo ko indi woon li tax yow nga ñàkk loolu nga xëy ñooñu noonu doon xeex melaat nii est-ce que nous mesurer une de la c'est compliqué mhm. donc nous, continuer ci chemin comme nous l'avons fait. mais nous nga que la population nous nga un du support Vous la kenn jaral nga sa jël sa def en danger pour nous, mhm. ci politique yi pour que nga faire ne fi parce que ce fait, à la fin yow rek yaa ya ci sonn ya ci souffrir yaay xalaat saxol xol di jeex te doo si mën dara le coup est déjà parti. Mhm. te à chaque fois opposition pouvoir kii dem kële ñëw ñu doon am dañuy continuer am sama genre bi ñàkk ñu continuer ñàkk. boo demul liggéeyi nga yaakaar ko si ñoom yaakaar naa ni di nga am beneen problème fu may daanelee mooy nag barki démb dañu gis la coalition Diomaye ñu yónnee benn lettre ouverte au premier ministre du Sénégal. Mhm. ne ko dañu ñëwaat rek rappeler ko comme ñom sen sen deugal sen bop dal wane na danoo travail en collaboration te ba légui ñu rappeler aussi ci lettre bi que ne fan yi gis nañ ay mbir yuy am waye peut-être dañ sé desee gis sen bop mm-hmm. légui nak lettre bi deux deux jours rek la am troisième bi démb ñu xëy ne nommé nañ ministre euh, kooku noonu Mimi Touré au conseil légui nak mag Khalil ño bok ño bok question. moy mhm. haut bi mom lan la ci doon vraiment. Mhm. daf koy représenter fan ak fan ba ñu yéegal haut bi niveau bi quoi haut bi mënu mënuñu yemuñu rek ci conseil lolu bëggon naa ko xam Khalil ño ko bok mag mom ayte une question qui mérite d'être posée ñu delu ci wat euh, ci information bi ñu leen joxone sank muy euh, l'information selon laquelle Lat Job a été euh, arrêté la régie je vous ai envoyé une photo ngeen euh, euh, Dougal ñu ko mu nekk une information boo xamante ne nii newoon nañ leen dinañ leen ko toppal de source sûre jot nañu information ni que loolee wérul donc Lat Job, Mingi, ngi ci biir këram fa ñu jëlee boobule information nag ba daal di koy véhiculer Nak, ñu xamal leen rek ni du loo xamante ne nii lu wér ñu dellu si waat ci euh, waxtaan wi euh, ñëw nag ci suñu ñetteel bi ponk mu soxal euh, coowal suufa dem nag fële nga xamante ne ni moom moo di wakaam ñu gis ni ay bis yi ñu génn dañu fa nemmeeku woon fitna diggante askan wa ak takk der yi la di coowal suuf tey nag ñu am ci plateau bi ki nga xamante ne ni moom mooy njiital collectif wakaam suñu mameel mbeng ndax mën nga dellu si waat euh, ci lan mo indi euh, affrontement wala bok euh, tension yoyu nga xamantene ne nii nañ ko fofu. ci seen ak comme à travers les médias. Mhm. gis nañ lacrymogène vraiment Sénégal depuis avant élection mhm mais li ko waraloon rek mooy euh, ñàkk communication la woon parce que dafa am ñoo xamante ne c'est des gens tapis dans l'ombre ñoo dem fi nga xamante ne mooy euh, gendarmerie dafay déclaration comme quoi que euh, collectif Moomel Wakaam dafa bëgg a taal dëkk bi alors que ay fan si ginnaaw euh, le même collectif tenir deux réunions. Mhm. deux réunions yo xamantene ci quartier bi ci benn ci école la la plus vieille école élémentaire de Wakam. deuxième def que la plus grande euh, euh, place publique de Wakam. Mhm. donc place place publique bo xamantene c'est mythique pour le pour nommer muy Baye. d'accord Il def nañ ko deux fois. Mhm. ah presse bi amul benn problème. Mhm. beneen bi si nga xamante ne moo si waroon tegu mu war ko waroon ko def beneen bërëb. Mhm. boo xamante ne dañ ko choisir comme tout le temps loolu yëpp si benn programme boo xamante ne dañ ko defoon ne dañuy def le tour des quartiers pour sensibiliser euh, population bi jeunesse bi surtout. Mhm. que lii xew si Wakaam suufu Wakaam bi nga xamante ne ñu ngi koy caxa caxatee si anam boo xamante ne dëppoowul. léegi si loolu noonu rek. coo loolu amee te xam nañ ne wakaam wax dëgg neex yàlla depuis jamonoy maam ba léegi mm. ay euh, li ñu naan réunion quartier yooyu noonu euh, kenn mosu ko tere sax mm-hmm. kenn mosu ko tere te kenn mosu si demander demande d'autorisation parce que noonu la traditionnellement noonu la mos a déroulé ku am lu am information yi ñuy jàllale dañuy dem si quartier bu nekk place bi ñu toog fa wax waxaa nit ñi wax leen lii xew si dëkk bi. après ku nekk dem. Mhm. loolu mosul demande autorisation. moo tax mhm. bi ñu demee si audition yi si la ñu wax naan ay autorisation ñu ne leen si même moment bi am na ñuy doon def loolu te kenn terew leen mais gis nañ ne affaire bi jeunesse bi ni mu ko porté. Mhm. dañ si décidé euh, takku. bëgg dem jëli ji li ñu moom loolu moo waral ñu si bëri ñoo xamante ne euh, collectif bi neexu ñu ko.

ñoo nañ foofu noonu barricade yu xam nga mbeddam yëpp yoon man ni comme si dafa am benn lu garaaw lu fa war a am. ok alors ah, que simple réunion kese la woon. mais comme li mu wax rek désinformation bi. Mhm. moo gënoon tax xam naa mu jëloon matukaay alors que loolu def nañ ko deux fois amul benn problème mhm. troisième fois bi amul am benn problème te ñun wax dëgg neex yàlla bu ñu bëggoon ñoo ne dañuy xeex wala dañuy taal ñu ngi sol suñu t-shirt aussi. bon presse bi à visage découvert bu ñu bëggoon indi coow rek dañuy dem toog ba benn heure bi ñu def la ñuy def coow du jub mais kuy dem na da ngay indi safaan wax dëgg neex yàlla du am taxawaayam te ñun sax loolu taxu ñoo taxu ñoo jóg quoi mm-hmm. assez d'arguments euh, boo yoo xamante ne mën nañ ko xeexee plutôt que de d'user de la violence ko mm-hmm. donc loolu moo nekkoon li indi euh, mm-hmm. affrontement yi seen diggante ak policiers yi amul ay gaañu gaañu kenn jëlewu ci ay blessure ak yooyu. non ay ay kii légère blessure légère aussi bien euh, côté force de d'accord léegi yéen ci wàllu suuf lan ngeen di revendiquer exactement. voilà li revendiquer mooy dañu seetlu Wakam euh, dañ ko léser dañ ko léser euh, si wàllum mhm. si. mooy maanaam Wakam dafa accepter recevoir cinq camps militaires. Mhm. cinq camp militaire boo xamante ne base française ci la bokk yaa am nga euh, état major armée de l'air gendarmerie batrin ak euh, camp euh, kii mamel fi ñu naan mamel camp batterie xam mm-hmm. nga boo ko boolee base française mu nekk cinq camp militaire ak benn hôpital militaire yoo xamante ne ay réquisition la woon dañoo ñëw état bi ñëw nañu ah seen suuf bi dañ ko soxla pour utilité publique ñu jël joxe mais dem nañ ne ba jëmmi jamono euh, ay trois mois avant élection présidentielle yi. Mhm. ñu gis ne ñu ngi jël camp yi ñu ngi leen toxal. Mhm. di toxal camp yi mais nag commencé tabax daanaka sax fu ñu naan EOGN mooy camp camp militaire bu bu gendarmerie école gendarmerie. Mhm. foofu noonu. Euh, déggoon nañ fa ay wax jox nañ distribué nañ jox nañ lions yi mais ñun comme que lions yi lañ déggoon rek ñu naan lions yi wax dëgg neex yàlla. def nañ fi loo xamante ne lu leen defal rek néew na. ñu ne ah kon garaawul mais gis nañ ne jox lion yi loolu laxatul woon rek si ginnaaw pour gën a mën a def benn forfait parce que boo xoolee li nga xamante ne si domaine militaire la nekk boo koy boo balaa nga koy génn si domaine militaire da nga koy déclassé ak par décret. déclassé nañ huit hectares cinq cent. jox lion yi délégation bi yëpp cinquante deux la xam cinquante quatre. léegi le reste ñu ne euh, au au au au kii au commandant yi lañ leen wax xaw ma ñuy sut si armée bi. Mhm. ñooy dañ leen jox loolu yëpp si dégg-dégg lañ nga am mais si biir euh, cooli bu mu commencé wax ji commencé bari ñu ne ah jox nañ kiñ naan euh, Sëriñ Baara Doole jox nañ ko foofu ñu ne ko à quel titre. lion yi lañ ñu waxoon. Mhm. ñu ngi dem ba si biir ñu dégg ay tur Baara Doole yi ak yeneen politiciens. ñu ngi leen di jox Farba Ngom keroog benn gis nga journalu journalu Libération la wala Yoor Yoor. Mhm. dugal na ne jox am na fa 1400 mètres carrés mais au nom de quoi loolu nag lañ ne ah bu fekkee jox pour Lions yi kese moom waaw Wakaam pare nañ pour dem gasal sax gasal leen fondation gratuitement ñoo tabax parce que mérité nañ ko mais quant jël ay nit rek ñoo xamante ne vraiment. Euh, jóge nañ nekkuñu si gox bi parce que ñi si gën a jege ñoo si gën a mën a yey jël leen fële parce que am nañ ay position politique ñoo dañ leen jox ay suuf yoo xamante ne ay valeurs milliards la loolu enrichissement illicite la en quelque sorte bàyyi leen dëkk si si beneen côté bi nga gis Wakaam dëkkuwaay wi xat na donc quartier yi dafa dem ba dafa amatoo sax espace boo xamante ne xale yi mën nañ si mën nañ si fo ba pare ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk à eh, génération génération ñu dëgg après da ngay construire en hauteur mais yow ko xamante ne na 5 ans en plus il y a des cités boo xam tam plus de 10 cités mais 10 à 11 cités la première seulement moo si ay espace de jeu mais gis nga li si des cité yi ñu def yëpp batrain cité avion balai, avion cité bële l' autre là cité aviation mhm. yëpp gis nga mën si limal plus de dix cités yoo xamante ne amul benn aire de jeu dañuy ñëw rek daggay kër joxe daggay kër joxe mhm. cité Mbacke yu fay gis nga ko cité Cheikh Amar gis nga ko gis nga condition yi nga yi nga tabaxee mhm. yi nga ko joxee euh, yi leen ko joxee mooy maanaam dañoo ñëw ñu ne Mbacke yu fay am surface bu toll ni cité Mbacke yu fay léegi en contrepartie da ngay tabax mënu ya ngay joxe xaalis pour ñu tabax monument de la renaissance monument de la renaissance ñaata ñaata la ñaata lañ ko tabaxee treize milliards montant bi yëpp ak ah, noor coréen yi treize milliards waaw léegi yow nga jël fayee nit ki assiette foncière boo xamante ne si biir dëkku jàmbur nga fayee ak assiette foncière boo xamante am na valeur bu plus de quarante deux milliards loolu da nga ko mën a tuddee mais maanaam si même dëkk bi nga jël. Euh, euh, Euh, ay suuf jox ko benn nit. Mhm. nekk en contrepartie defaral ma si même même dëkk bi benn monument buy jar treize milliards. léegi boo paree nga dédommager waa dëkk bi euh, trois milliards cinq cent boo xamante ne kenn xamul sax fu mu fu mu dugg ba léegi. dañuy ñëw le même état bi nga wax ni. Mhm. mooy wax ni moo ñëwaat créé fa ay plusieurs jaraaf léegi na leen juboo leen. ma jox leen seen 3 milliards xam nga loolu saaga sax laa ko mën a tuddee. Mhm. te au nom de quoi la nga war a mën a depuis lors jël ay cité jox koy nit. Mhm. koy tabax def ay promotion immobilière di gagné ay milliards yow ñi nga xamante ne ñu ngi si biir gox bi moom propriété bi ñooñu nekk dans la promiscuité totale di xat-xatoo kii bu tëddee jóg kii génn. Mhm. mais loolu balaa ngay def dara sax ne da ngay distribuer ay terres da ngay jox ñi nga xamante ne ñoo si gën a jege mën a gën a jege gën a yey. loolu moo waral coono yëpp. dañu gis ne si même surface yi li ma lay waxal nii mooy maanaam euh, comico militaire yi am nañ fi benn cité des généraux gis ngeen ko mooy si termisit bi. cité des généraux ñu def ngandam plaque si diggante avant élection et début kii lañ commencé accélérer travaux yi te euh, amuñu sax autorisation. site yoo xamante ne nekkatul si kiiwu armée bi bu ñu ko génnee aussi tamit mën ñu ñëw rek mhm. ne da ngay tabax ku dee leen laa laaj sax mairie bi bu leen laajee autorisation ñu ne fii duñ laaj autorisation kon na di tabax léegi gis nañ ne Comico en tant que entité privée mhm. moom moo doon xeexax Thermosit Thermosit mooy habitants yi nga xamante ñoo fa nekkoon mooy coow li nga xamante ne dem na fa Guy saa Sagna dem fa mhm. ñu indi fa coow lu rëy Barthélémy Dias sax dem na fa mu nekkoon coow boo xam ne en deux mille vingt coow bu métti mais dañu fàtte woon ne Comico ces mêmes habitants là dañ ko da leen euh, dañ ko gagné woon euh, devant les tribunaux léegi Comico dañ ko teg stand by léegi dañ créé di naan Alpha association pour les logements des forces armées léegi ñooñ ñooy continuer di tabax léegi doon na nekkatul affaire publique léegi affaire privée la te ñun bi ñuy jël suñu suuf. pour yëfu public la woon utilité publique mais bu ñu si baree delloo leen ko wala boo leen boo leen boo leen delloowul ngeen def fa loo xamante ne pour utilité publique la ba tey. tout à fait. waaw loolu la moo waraloon xale di ñun ñu ñaxtu jóg ne ah lii mag ñi sunu mag yi maam yi nangu woon ñun dañ ko mhm. nangu de. da ngeen koy récupérer waat seen alal la seen alal la. Euh, Fatim am nga question. waaw man xamante ne peut-être ci monument de la renaissance bi ni mu mhm. demee ak cité mbak yu fay ak yooyu yëpp mhm. amaana euh, euh, euh, yooyu peut-être yoo xamante ne la lu am ba pare existence bi am na ba pare xëy na ñoom seen xeex bi pour ñëwaat la mm. mais yi nga xamante ne moom ngeen dee jàpp ne da ngeen ko découvrir ñu jox lion yi après ñu cité ay nit ni dañ leen fa jox dara au delà de gis ko ci journaux yi wala ñenn ñi di ko bind da ngeen dem vérifier ba am papier yu authentique yu ngeen gis bu ko confirmer wala déet. effectivement xam nga fii. Mhm. mooy danga nga jékki gis euh, coow mbuurkat bi. Mhm. Euh, fa lañ jëlee information yi. Mhm. nga jékki-jékki ñu gis ko. la même de la même manière. aussi dem ñun lañ jotee information yi. gis na ne di wax di wax di wax di ay nit yu bari ah yoo xamante ne am nañ jël leen daggal na leen si lu teguwul fenn. mais est-ce que ce sont des informations non information rek laa wax ndax da ngeen dem parce que su fekkee dañu wax ne diw dañ ko jox euh, suuf. ñi ñu jox ñëpp am nañu. fi ñu ko bind document boo xam ne légal nañu jot ko te yéen fi nga xamante ne foofu la ñuy traité foncier en tant que collectif bu ngeen demee bëgg jëf renseignement yaakaar naa dinañ leen jox les documents yi nga xam ne moo koy firnde ba tey yéen à la base de sax mën ngeen cee dem ci yoon ak yeneen ndax jot ngeen ci documents yu conforme yoo xamante ne bokkul yemul rek ci information à la télé à la rajo wala ci coowu mbuurkaat léegi loolu non gis nga euh, pour wax la benn information gis nga si eh, fu ñu naan impôt domaine mm-hmm. amul benn information bu ñu lay jox mm-hmm. si euh, titre yooyu noonu mm-hmm. parce que lépp dañ ko vérifier d'accord parce que véri vérifiement bu taxee bu amee dafa am lu ko waral parce que li ngi def moo jubul lu doon def moo jubul moo tax ñu jël vérifier information yëpp lan lañ si génnee comme information ne Lions yi jox na leen pourtant Guy Marius Sagna du génn na. Mhm. nee na jox nañ ñeneen. d'accord la ko jëlee mhm. ay sources am. Mhm. ñun tamit suñu source lañ ko lañ lañ ko lañ jëlee rek comme ñëpp. dem xool ay couloir laajte ñu nañu ah lii la. yéen dañuy da ko constaté de de de visu mais gis nga Serigne Saliou Guèye yor-yor fa la jële information ba joxe titre Farba Farba Ngom yi. loo wax ne fii laa ko jëlee.

instant suspend nañ pour ba trois mois mhm. ce qui veut dire que on a eu raison de euh, wax li nga xamante ne wax parce que bu amul woon dara état du ko pour trois mois voilà. Mhm. alors Fidel, tu as des questions ah, man de euh, question j'ai aussi aussi contribution ci mhm. ci ci lu mu lu mu voilà question bi man dama euh, est la responsabilité de de la mairie loolu laa bëgg a laaj quoi seen mairie yi maanaam boo xoolee ay délibération la ñu ay kii donc nan la nit ñi di ñëwee di di installé wu di installé wu sans pour autant que votre mairie ne soit pas au courant man loolu jaaxal na ma trop euh, parce que normalement c'est des informations yoo xamante ne yéen waroon ngeen mun a xam auprès de votre collectivité territoriale parce que ñoom ñooy responsable du côté boobu noonu mm-hmm. même bu fekkee état bi day ñëw ak mm-hmm. mais la mairie doit avoir des informations sur le nombre d'hectares et non ngeen bonne ko qui ci sëñ Saliou Guèye sëñ Saliou Guèye bu ngay tudd nous xam nañu ban politique là-bas, donc euh, peut-être il l'a fait je ne doute pas de de de de sa source mais la mairie bi moom lan renseigner sur tout ce qui se se trame depuis un certain temps parce qu'il y a tout un problème financier. non maanaam maire yi li si gën a garaaw sax waxuñu ko mooy euh, xam nga lotissement dafay am. Mm-hmm. lotissement bi benn autorité bu nekk foofu noonu nekkul au courant xam lotissement dañuy informer maire bi na ñu ngi def lii si commune bi. Mm-hmm. mais ñoom sax informé wuñu ko. mais dafa xëy benn jour. informé wuñu maire. non gis nga suivre nga maire def na benn point de presse. benn conférence de presse en son temps ne du joxe ben autorisation de construire foofu parce que yëgul li xew. en tant que autorité locale waaw moom mm-hmm. defoon na conférence de presse il y a un an si ginnaw wala mm-hmm. plus na fi du fi joxe ben autorisation de construire. d'accord parce que bobu après le même Bara Dolly dafa demone assemblée nationale mon amna ben maire boo xamante ne opposition ne na du joxe autorisation de construire yéen bu leen suivre xoolaatee leen tuuti. ngeen ko mm-hmm. gis maire bi defoon conférence de presse ne fii tant que maa ngi fi dama joxe benn autorisation de construire parce que gisuma lotissement gisuma projet gisuma dara dama ñëw rek ñu gis ay ñu envoyé ma ay courrier mhm. ma gis def constat bi fekkeewu ma ko fekkeewu ma fu ñu waxtaanee du ma ko nangu moom foofu la taxawoon loolu yi ëpp na un an. d'accord mais entre temps nag bi ñu xamee ne am na.